nday Khady Ndiaye nekk ki nga xamante ni moo di propriétaire salon Sweet Beauté moom nag tey ci àllarba ji dañ ko waroon rek déglu foofee ca juge bu huitième cabinet du Seck rek nekk fa waaye nag jotoon na wuy ji waaye nag ab daan dañ ko daal di teg rek ci kawam moom Ndeye Khady Ndiaye moom daal dañ ko placé euh, sous contrôle judiciaire maanaam daal day libre waaye tamit du tee day resté ci disposition de la justice maanaam du génn du dem fenn heure buñ ko soxlaa rek pour déglu ko moom Ndeye xad yi dafa war a rek daal di disponible daal di ñëw rek euh, wuyu si leen waaye nag buñ gisee ne contrôle judiciaire boobee nga xamante ni moom la nekk jamono ji bis bu ko respecté wul rek ci danañ ko nag daal di jël si rek tegaat yeneen ni daan rek euh, ci kawam jamono ji nag euh, libre na moom Ndeye Khady moom mi nga xamante ni bii rek moom moom salon suite beauté boobu lee nga xamante ni fa lañ daal di taqalee kii di Ousmane Sonko viol répétitif ak menace de mort tukkee rek ci employé boobu rek di thank you